ak El Hadj Ousseynou Ndiaye tal nga xam ne rek moom lañu xëyandoo ñu daal di koy door ak la Tribune yéenekaay gi duñu xam ne jamono ji kay l'heure est grave yéenekaay gi duñu xam ne jàngoro covid 19 yeeg ni nga xam ne noonu lay doxee ci réewum Sénégal yi mbir xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci réew mi jamono ji kay cas communautaire yi na muy doxee gaaw na lool ju nekk téeméer ak fanweer ak benn ci ay cas communautaire yoo xam ne jot nañ ko nemmeeku ci réewum Sénégal loolee covid-19 kay lépp loo xam ne jëm na ci wàllu xeex ba jëm na ca la wax cas communautaire l'observateur yi doy gi duñu xamal ne ndax loolee kay wërta tax nag ñu tëj suñu école yi tëj lii nga xam ne rek moom moo di frontière yi yéene gi duñu xamal ne loolee jar na ko daal ngir ñu sauver suñu mag yi ndax jàngoro ji ñamu ca yóbbu bari na lool yéene kaay gi di La Tribune diñu xamal ne kay xalif général des mourides Serigne waaw ak ñu jàngal xoraan loolee kay mooy jamono ji tolluwaay ko mbas mi ci réewum Sénégal surtout ay gi duñu xamal ne maanaam daal ak lu ñu mënti xew nañ ca gaaw ndax jàngoro ji na muy doxee gaaw na lool ci réewum Sénégal liseku yéene moom xëy dafa gëstu ne armée li bàq yi ak ña nga xam ne rek moom lañ fay denc yéene gi duñu xamal ne lu ëpp junni ñooñee nag ay góor lañ daanaka junni yee la ci ëpp ay jigéen la yéeglekaay gi gi duñu xamal ne moom moo di njiitu réew mi Macky Sall yéeglekaay gi duñu xamal ne moom kay mbir ya ca doy moo di këyit ga nga xam ne rek yoroon na ko yéenekaay gi duñu xamal ne baaxul jamono ji nag lañu koy toppee bokk na ci ci maanaam daal ñàkk kersa moo di agent buy liggéey waaye tamit ay kàddu yoo xam ne dafa ñaga mu daal di koy lal ci ndoddu njiitu réew mi l'évidence yéene kaay dina xam ne kàddu yu ñagas yu ñàkki teggin kay moom la Aminata Lô Dieng yëkkati teg ko ci kaay bi di critique di ñu xam ne jëm na ci jàngoro covid 19 gi ak xam ne noonu la jàppee réewum Sénégal yéene kaay gi du ñu xam ne wàllum koom-koom mi koy jamono ji ma ngay bëgg a dee xam ne rek moom moo di sali lañ daan am ci wàllum tourisme ak yu ni mel jamono ji gisuñ kenn enquête yéene kaay nañu borom may gay ak borom dibiteri ñoom itam ay jafe-jafe yu metti la ñuy jànkoteel ngeen ni jàppalewu leen laas yéen i kaay diñu xamal ne moom kay kàddu yi nga xam ne rek yëkkati na ko dafay xam ne ne élection locale yi dinañu ko amal ci atum bu dee nag lu soxal ñetteelu mandat beeg yu ni mel njiit réew mi moom kay moo yor cëggal gu yëm moom moo cay wax keneen koo xam ne jamono ji ay mbiram war nañ cee wax yéen gi duñu xamal ne mooy Boubacar Seye Sud Quotidien yéen i kaay duñu xamal jamono ji sonn na lool te libération yéenekaay dina xamal ne mbir mu doy ay atam ko daal daanaka lu toll ci at di ko tëddee yëglekaay gi duñu xamal ne moom xale bi kay ba mu sonnee la ko wax yaayam mbir la moo ñu xamal ne moom nga xam ne rek mu nekk kay jafe-jafe yi ëpp na loolu maanaam jigéen ñi nga xam ne rek jamono ji maanaam daal seeni at dafa kawe lool jaaxal te ñu am jafe-jafe ngir am borom kër ñenn kay am borom kër seeni borom kër nekk biti réew la leen jaaxal dëgg moo di doom yéenekaay gi duñu xam ne benn soxna ci yéenekaay gi duñu xam ne moom kay lu ëpp ñaari million ak lu teg ñàkk na ko ngir am doom ak lu mën a xew daal xam naa ne ñaan gi ci gën a wóor moo di wàññi dàq bi ba suba